Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax tey nag yàlla yàlla dogal nañu ñu ñëw fii Pikine ku wax Pikine wax làmb waaye ku wax Pikine wax euh, Boy Niang 2 mënta ñàkk fii nag tey yàlla dogal na ñu ngi kër këru Boy Niang di waxtaan ak ki ki nga xam ne moom mooy papam fas yéene waxtaan si actualité làmb combat bi nga xam ne taxaw na diggante Boy Niang 2 ak euh, ki nga xam ne moom mooy Tapha waxtaan tuuti si actualité waxtu bii ñu nekk kenn mënul wax ci làmb te waxuloo ci wàllu actualité bi bi nga xam ne moo ci gën a fës muy wàllu CNG ak euh, alinsar kon yooyu daal la ñuy fas yéene waxtaane incha allah donc euh, Papa De ñu ngi lay nuyu. waaw abu maa ngi lay fay di commencé si bisimilah rahmaani rahim di gërëm kilifa diine kilifa aada yi di gërëm waa kër Cheikh Ahmad Fadal bokk di gërëm waa kër Cheikh Abdou Aziz Aïdara bu Thiès père euh, de balaa ñoo ñëw ci euh, ki nga xam ne moom mooy Boy Niang ci boppam ñu bëggoon rek fas yéene waxtaan tuuti rek ci benn baat ñu waxal ñu ci làmbu Pikine bu li li ko dalee si ñoom Papa Fallaye Baldé ñoom euh, du suba ba ñëw tey si xale yi ñoom Ama ñoom Boy Niang xale yi loo ñu mën a rappeler tuuti si histoire làmb fii nga xam ne moom moom mooy Pikine. waaw ñu ngi gërëm waa Pikine yëpp kilifa Pikine yëpp muy mago sport yi kilifa yi nekk Pikine ak yëpp ñu ngi leen di gërëm waaw mën a wax si Pikine mooy. suñu baay Falaye Baldé yal na ko yàlla yërëm yàlla xare ko àjjana firdawsi moo ki nga xam ne mooy sama maître di Boy ak Mbacké Ba ak bépp mbër bu génne àdduna ñu yokk Mor Fadam euh, Tubaabu Joor Alsaan Jaxate Mor Ngeer waaw Daawuda Fall ñëpp lu nga leen yàlla mi man yàlla na leen yàlla xare àjjana firdawsi barke yonent bi ah Falaye rek moom moom suñu père la suñu baay la waaw maa ngi moom tamit seqoon nañu relation bu rafet moom ma sa nekk fekk na ma fa di ma digtal bu may bëri li ma lay wax ne la doomam Papa Balde am na combat fii man maam komba Kébémer mu jóg ànd ak man dem Kébémer bàyyi fi kon papa kooku am na fu mu la teg waaw yóbbu naa ko Kébémer fekk député Kébémer bi supporter la woon muy maire Kébémer bi keroog dañoo pare si làmb ma daan ànd ak moom parce que député député bi maire bi mu yëkkati teranga yu bari defal ko yóbbu naa ko ngaay tamit mooy bëri ngaay yóbbu ko Abdou Aziz Ndaw président assemblée national comme sama mag la woon sama baay la woon sama kilifa la moom it mu defal ko lu rëy defal ko ay teraanga waaw parce que ñooñu Falaye Baldé lañ daan fàttaliku muy nit ku baax muy mag mu baax mag moo xam ne xale Pikine yëpp la yemale woon ñu benn ñëpp ay doomam la ñu woon waaw di ma conseillé nag fii Ama di entraîné yóbbu ma yóbbu na ma fa deux heures du matin sangat ma foofu moom Falaye Baldé boobu maa ngi bëree waaw te boobu papa ngi bëre waaw papa tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana waaw. merci papa boo nee Fodé Doussouba ne Falaye Balde ne teg ci pap Diop ñu ne su su su fa yemoon sax bu ñu jëlee kon arène nationale samp ko fii di Pikine kon xanaa <laughs> juumuñu de wala. waaw ah, juumuñu parce que Pikine fi la rawaanu bëri nag gars yi dañoo waale rek mais écurie fi nekkoon mooy écurie Pikine. Faas séeréer si kiri waalo waaw ñu ngi ñaanal Balla Gaye bu numéro deux numéro un yàlla na ko yàlla yokku wér moom Boy Bambara ak Mbaye Gueye Tigre de Fass kooku tamit euh, maa ngi koy sant di ko gërëm ndax li mu def si man bari na moom it waaw Mbaye Gueye Tigre de Fass waaw li man bari na trop waaw maa koy gërëm Balla Gaye numéro un. mun naa wax ne moom Manga tax ñoo tax sax man ma formé école de lutte waaw Balla Gaye numéro moom Manga moom Manga ñoo ma ñimaloo ba mu formé école de lutte waaw si dégool sa bëri bi ngay bëri jë def ko si xale yi ubbil école ah comme ñun nga am école di jàngale xale yu bëri parce que papa Diop amatul jot waaw ah, di ma forcé si loolu ba ma def loolu mm-hmm. yàlla def si barke tamit loolu daal mooy mooy Pikine. waaw te comme la ma waxoon rek. waaw Pikine Limaamu Laay fi ñaan. Limaamu Laay moo taxaw si ndigg li fii lëndëm këris. Mhm. mu ne fii fan la ñu ne ko Pikine mu ne fii dafa ragal fi juddoo. Ah ah, waaw waaw Pikine fan la ñu ko Pikine mu ne bi moo tax mu ne ragal lu fi juddoo mm. waaw. nga toog nii man fii laa juddoo. si Waxinaan gi waaw juddoo fii Dominique waaw. voilà père kon loolu nekk na lu leer leer alors buñ ñu nee arène nationale bi nekk biir euh, pikin alors ñu euh, ñu gis fi ay mbër yu mag a mag ni nga ko waxee sax ñoom Fallaye ak ñoom papa wala sama maam euh, Fodé ak ñooñu ñoom papa Diop. am ñu ne arène national bi war a am tur war nañ ko jox kenn si si ñoom ñii ne Fodé du suba moo ko gën a yeeyoo ñii ne mm, Fallaay la ñii ne Papa Diop pour yow mi dëkk Pikine màggee fi doon mbër xam leen ñoom ñëpp kan lañ war a jox turu arène nationale selon yow. Fallaay Baldé def na si Dakar Sénégal de rëy waaye Papa Diop champion de Afrique la de jëlee fa indi fa médaille d'or bari tey ñun Pikine bëgguñu polémique waaw polémique bi bëgguñu ko. Mm. Fallaay moo yar Papa Diop. mais Papa Diop champion Sénégal champion olympique la présenté Sénégal fu nekk yóbbul yóbbul yóbbul yóbbul yóbbul yóbbul yóbbul euh, Ablaye Wade médaille yi mm-hmm. ba waa Ablaye Wade daf ko de mission mm-hmm. kon boog mérité na ko mm-hmm. Fallay mérité ko waaw ñoom ñaar ñëpp kuñ ko si tuddee rek war nañ leen ko si tuddee parce que ñëw parce que benn bopp la li la wax léegi waaw buñ ko buñ ko tuddoon Mbàkke ba sax day baax waaw parce que ñoom ñëpp defal nañu Pikine lu rëy buñ ko tuddee woon ñi fi jógee ba seen tey seen ñeneen ñeneen day baax waaw parce que yàlla nee na booy li booy lim si lu baax bàyyi sa bopp nga la ñi si des man mi yor rek man dinaa la ko jox may jox dinaa la ko jox loolu tax nit ñi bala ngaa yéene sa bopp jàmm mhm. yéene ko nit ñi mhm. waaw muy Falaye Baldé muy Papa Diop mhm. waaw kuñ ko rek si papa si fii rek baax na buñ lees la champion d'Afrique la champion monde la ah Papa Diop noonu Boy Bambara noonu Mbaye Guèye noonu Mbaye Guèye Tigre de Fass gis nga ko waaw parce que du Pikine arène bi senegal la nekk nañu bàyyi arène baa ngi Pikine nangam sax arène baa ngi Pikine mais Sénégal la ko moom Macky Sall def ko pour Pikine Macky Sall la ko def pour Sénégal. kon nag tur bi war na mën a jóge mun na jóge fu nekk. parce que loolu moom laay wax si affaire Bawal. Mhm. bu ñu nee Bawal ne Kajoor mhm. non non së euh, sëñ Mountakha mhm. xalif général fu mu nekk Bawal barke dem lu mu def Kajoor El Hadj Abdou lu mu naan def du jógee Kajoor dem Bawal. nañu bàyyi loolu man xarit yi mu am làmbaay pàkku làmbaay kenn amu ko fa muy pàkku làmbaay bu Dakar ak bu Pikine yaa ngi dégg man samay maam yëpp dëkk Bawol parce que boo nee Jurbel mun nga ko si Bawol ah boo nee Sàmbe mun nga ko si Bawol boo nee Jaaxal mun nga ko si Bawol Jaaxal kër sëñ Bay Mbàkke sama maama ko senc nga ne Mbaye Kaddu sama maama ko senc ah déggul dégg wër fu nekk si biir Diourbel ak fu nekk bëri fa ah, sama maam yëpp maamu booy ñaa yëpp ñun séeréeru Bawol Bawol lañu kon nañu bàyyi Bawol nañ topp si ginnaaw diw déedéet booy ñaa si biir Réfane dafa am ay supporter waaw Tapha Tine si biir Diourbel dafa am ay senegal benn bopp la nañu bàyyi loolu parce que dama dégg kenn ku wax sama muy kii jon bare jonn bare jonn musul bëre man xam man mbay neewaan xamee naa ko ci bëre parce que suñu génération la mais bare jonn musuñu koo xam si bëre te stratégie gu làmb koy wax di ñu wax ne ñun xam nañ leen xamuñu yooyu yooyu du kii ñun xamoo ñun lu ñu xam bëre ay xam nañ leen te xamuñoo leen ñun xam nañu lépp mais ay wax amul yooyu yooyu stratégie la te yooyu stratégie yooyu ñun kenn mënuñu ko def la ma leen waxoon sa combat sa kees stratégie fii la fekk baax si stop booy ñaa kon boo boo boo ñu bëggee dugal yooyu ñu ay xam naa leen xam nañ leen déggul xam nañ ko déggul ku ko xamul. est-ce que du du bataille psychologique. bataille yooyu ñun romb nañu foofu. ñoo ngi jéggi nañu foofu parce que dañoo dañoo dugg ci làmb ànd ak ay magu làmb tarbiyewu leen xam nga boo tarbiyewu Falaye Balde tarbiye Papa Diop Boy Niang Mbaye Gueye Tigre de Fass ah Père Nat Fall bi xaalim sàmm di woo wax tarbiye ko mu may yónni jën may jëndi jën may yónni caay ma tarbiyewu ñooñu nga ñëw di ma waxi làmb làmb ñu romb nañu foofu li ñuy def mooy senegal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Saalum ak Kajoor ak Casamance ak Bambey ak fépp benn dëkk la lépp Macky Sall ko yilif